moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati asalaamaaleykum chers internautes de Serigne baabakër Diop TV ñoo leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal bu baax a baax a baax sëriñ baabakër Diop moo ñëwaat di leen defal saa su ne li muy defal internautes yi mooy di leen wax rek njëriñu gàncax fajum olof nga xam ne du ko doon sunu maamaati maam yi Serigne Babacar Diop di len ko defal chaque semaine mu may len ci ben gantax njëriñam Serigne Babacar Diop nong lay nuyu di le xiar amati mbekk bu baax a baax di le jaajëfal mais aussi di baye yalla mi fay yalla na yalla fay ndax njëriñ kesse nga fay joxe. billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfa illa billah xaw nu ko wa bika nastain di nuyu mbokk internet yi góor ak jigen mag ak ndaw comme bi ngeen ñu dala topp ak léegi jamono bu naa rek dañuy xool loo xam ne dina amal njariñ doomu aadama bi ci dundinam wala amal ko ko ci ay aajoom wala ci diineem eh, émission bi nag liñ ciy waxtaanee lépp nan lay def ba nit ñi mën a wér fajoo ci garab wolof eh, lépp luñ ci joxe itam daan ko joxe ba nga xam ne nit ki dana leer si boppam ba du ñu waat dañu laaj nan la ko war a jëfandikoo incha allah. Euh, tey euh, Serigne Diop loo indil internet ban ban nga ñu indil ak ban ren ak ban sunguf nga ñu indil. waaw tey ren bi ñu wax fuuf. fuuf fuuf. waaw fuuf euh, ren bu doy waar la ren boo xam ne moom la ñuy wax le ma le l'arbre du serpent maanaam garab boo xam ne ñu ko xam dëgg euh, xam nañu ne lu aay ci wàllu seytaane la lu aay ci dàq jaan la lu aay ci maye karaw lu aay ci hémorroïde ak euh, sax siti ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax xëy na ñun suñu xam-xam àggu ci waaye tey daal moom lañu bëgg a waxtaane incha allah léegi tey jii yaa koy wax mooy dafay dàq wàllum seytaane dafay dàq jàmm ci wàllum seytaane noo ko utiliser jóg waaw bu dee ci wàllu seytaane d'abord nit ki su koy ut mm-hmm. euh, daf koy ut bu ker gi seddee mooy diggante timis euh, buy bëgg timis laata ñuy nodd mm-hmm. su koy uut itam euh, li mu koy uutee day tari juróom-ñaari faatiya ak juróom-ñaari euh, salaatu ibrahima ba pare su koy uut tam fa mu koy uutee itam da koy dafay bu gasee ren ba noppi dafay def xalu safara waaw léegi su amee ren bi da koy weer mais du ko weer fu am naaj da koy weer foo xam ne euh, ker lay doon mm-hmm. nga xam ne du gis naaj daal. naaj du ko laal. Mm. su ko weeree itam ba mu wow day fexe def ko sunguf su ko defee sunguf mm. euh, sunguf soosu su paree weer ko mu wow ba def ko sunguf. Mm. da si jàngaat juróom-ñaari faate juróom-ñaari salaatu Ibrahima. jublu ci nag yàlla dimbali ko ci mu faj wàllu seytaane wàllu rab. léegi euh, booba ki seytaane jàpp ba ñu naan mu ngi ci dund ak dee su amee sunguf bi bu ko xentoo rek su fekkee ne seytaan da koo jàpp day mel ni maanaam dara xëyuñ ko boobaa du tisli déedéet su fekkee ne seytaan jàpp ko tam boobaa day tisooli ñu xam ne ki seetaan jàpp ñu dem faju ko leneen lu dul seetaane mais bu dee seetaan da ko jàpp bu ko buñ ko ko kiiyee maanaam xëy leen ni boobaa du du tis li. ko suuroo kenn dañ koy suuroo waaye dama lay wax maanaam balaa ñu koy suuroo. ni nga njëkk a def ndax bu fekkee ne tey seetaane jàppul nit ki tey mm-hmm. jarul koy suur xam nga. Mm-hmm. li muy njëkk a def na ko nañ ko ko fóonal. léegi suñ ko fóonalee euh, mu xeeñc ko su ko xeeñcoo. su fekkee tisli na tisli tisli tisli ñu xam ne kii seytaane jàpp ko su fekkee dañ ko fóonal tisliwul nag ñu xam ne seytaane moo ko jàpp bu ko defee boobaa nag nga comp si ñetti comp te comp bi sa baaraam bi du ci bokk ni ngay def nii comp teg comp ba muy ñett mu suuroo ko yaa dégg su paree itam mm-hmm. mu sangu ci boole ko juróom-ñaari guro yu weex bu dee seytaane la day deñ incha allah. bu rëy bu mën na ko saraxe. léegi. Mhm. lenn tam am na ci fi ne nii am na nit mën na ko suuroo seytaane jàpp ko sax mu suuroo mu kii nit mën na ko fóon seytaane jàpp ko mu fóontu ko mhm. du tisooli bu ko ñu yaakaar ne seytaane da ko jàpp fekk ne boobu sunguf itam bu yàggee mhm. day sàlli. bu yàggee yenn yàggee moo tax sunguf boo bañee mu sàlli da koy dugal ci potu weñ. koy dugal ci potu weñ wala potu verre mais bu yàggee ci mbuus rek tuuti day sàlle bu ko defee nit ki bu ko fóonee wul dañ naan seytaan da ko jàpp fekk ne sunguf bi moo varié su garab wala day varié waaw macha allah am na am na solo job yaa ngi wax tamit sa biir wax mooy ki nga xam ne dafa am hémorroïde mën na ko utiliser ki utiliser ki nga xam ne dafa am ay hémorroïde nan lay utiliser garab bi garab bi waaw ki am hémorroïde du moom kese lay utiliser de waaw loolu tam lu mat a kii ndax garab bi mhm. soo ko naanee moom kase mhm. xaw na am euh, dafa dafa fort kenn du ko naan moom kase boobaa da nga koy booleeg ñaandam ak gën gi dëkk ñaandam ak gën gi dëkk su ko booleeg ñaandam ak gën gi dëkk mhm. chaque jour balaa moo ko utiliser bu ko leen jaxasee ba mu ànd ba pare moom boobaa ñaanal bi ak ak gën gi dëgg mooy ëpp. moom boo defee kilo kii boo defee euh, juróom-ñaari kuddu ñàndam juróom-ñaari kuddu añ moom ñetti kuddu doy na ci xaax kii gën gi dëgg itam nga def euh, juróom-ñaari kuddu yu mag loolu mooy doosam mooy doosam soo ko mélangé noonu ba noppi mm. da koy def ci ndox ba mu teey nit ki di ko naan suba ngoon ak guddi kudd bu ndaw suba ngoon ak guddi bu amee hémorroïde fa lay yem macha allah Diop incha allah yaa ngi ko doon waxaat ni ren bi tamit dafa moom ren bi nii rek hmm. danañ ko def euh, cëwli cëwli mooy lan maanaam téere boo xam ne hmm. ren bi ngay jël takkal ko xale bi Ah, ren bi ko. waaw da ngay dagg ci ren bi. Mhm. comprendre nga mun ko bañ ëw sax mun ko def ak morso bu weex morceau rek ak morso ni wala noonu rek takk ko ak def ko ak wëñ mhm. mu koy takk jaan fu pose da day sori ndax jaan ko ne nit ñi bu daan dugg ci àll bi mhm. bugg yaay la leen ci jaan dañuy xëy comp ko def si ndox naan wala teg ko seen làmmiñ bu ko defee jaan bu la gisee maanaam biram day metti day xalangu di xalangu di weñaaru ba sedd wala bu la njëkkee gis day daw. macha allah bi am ba pare antivenin la maanaam jaan bu la maatee du def dara du la jege sa ba lay matt far bu fekkee tam nit da ko jëfandikoo. nit ki ba fekkee tam moom ren bi da koy dindi bu gaaw sax day dindi dangal bi day jël rek sunguf bi mhm. waaye nag leeral naa ci njalbeen gi ni ñu koy wutee. day ut si sunguf bi rek def ko ci ndox mu tey mu naan ko ki jaan matt naan ko mu dama daal dindi veneen bi am na tam koy def laax waaw sunguf bi nga ni am na ñu def ci laax na ñu ñoo xam ne fi bu ñu dund dangaw jaan dañ koy def laax am na tam ñoo xam ne mhm. dañ koy suy seen kër comme nga xam ne fa nga dëkk bu fekkee dafa bëri yooyu mhm. da ngay fexe di suy ci bunt bi bu ko defee lépp loo xam ne xeet googu la day dafa dafay dafay sori. macha allah soo koy taal ci kër tam seytaane dafay dafay daw. am na solo dama bëgg rek nga gi waaw garab bi. Mhm. ngi tudd fuuf. fuuf fuuf la bu am solo la kenn ku nekk war nga am sa kër reen bi ak sunguf bi. est-ce waaw xam nga fi ne nii fi ëpp garab. Mhm. bokk na ci euh, Saalum. bokk na ci Saalum bokk na ci tam boo demee ba diggante ma diggante Tamba mm-hmm. ak Kédougou comprendre nga zone yi même gi am na zone yu bëri lu mel ni Bambilor fii nii bariwoon na garab yi mu am mm-hmm. mais ji nga ñi léegi tool yi de gor nañ ko pour dëkkee ko mm-hmm. yaa ngi may dégg loolu moo tax fi ne bëreetul côté bii waaw yaa ngi doon waxaat si si ren muy dafay pour mu maye karaw boobaa dafa am lu ñuy wax bain marine. Hmm, bain marine. Hmm. muy mën nga jël karité wala vaseline wala siif hmm. walla lépp loo xam ne day so day solide maanaam comme genre karité lay mel boobaa dangay ngay ut ndox tàngal ko ba mu bax nga jël ciin bi ngay toggee garab gi. def ko ci biir ndox mu tàng ni léegi jël carte bi bu fekk carte nga ko bëgg a defee nga jël carte bi def ci biir tin bi nga xam ne carte bi waa du xëm wala muy saxaar mais ndox mu tàng moo koy moo koy togg soo paree nga jël mbal mbal mm-hmm. sungufu mbal sungu mbal nag mooy ëpp xaax cooy bi mooy ëpp euh, fuuf bi boo defee sungufu mbal mm-hmm. lu tolloog juróom-ñaari kuddu moom mën nga jël ñetti kudd parce que moom dafa am doole bu ëpp moo tax foofu bi nga waaw léegi bu ko defee ba def ko ci kii bi karité bi tëj ko nag mën ko tëj bàyyi ko lu toll ak deux heures de temps ba nga xam ne léegi garab bi mhm. substance yi nekk si biir sunguf bi yëpp mu ngi ci karité bi. yebbi na mhm. nga daal koy segg ba nga xam ne ba xam ne kii bi garab bi du ci àndaale su kii bi. Euh, grain yi du ci àndaale mhm. soo paree boo ko seggee filtré ba mu set nga bàyyi ko ne ba mu dal. ba sedd nga def ko sa pot lu gaaw ci karaw karaw la waaw lu gaaw ci kawar la képp ku bëgg kawar su ko dee diwoo même su leeloon leel bi day deñ suy bëgg a leel leel bi day taxaw ba pare mën di waat karaw gi su fekkee ak karaw gi dafa am siti siti siti bi day deñ comprendre nga ba pare day gaaw guddal karaw gi ba pare da koy da koy may karaw bu baax yéen ñi am euh, chauffe dama leen di digal ngeen di wut reenu wala sungufu foofu jërëjëf Diop moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj